Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bés bii bi su ko defee ngeen doon membre abone di am en temps tous les événements beneen bi ci des it ñu jëmale ko ci li nga xam ne mooy am ci réew mi mu jëm ci wàllu sëriñ ak politique te ñu bokk ci sëriñ si nga xam ne dañuy def politique may wax fii mu leer Sëriñ Moustapha Sy moom dafa am kàddu yu yëkkati woon jëmale ko ci ab yonent ku yëkkate kàddu nag jëmale ko ci ab yonent yaakaar naa bu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci yow ngay def politique waxuñu sa casquette sëriñ mais casquette politique lañ wax kon maa ngi leeral ne ñun dañuy def politique di jàppale président Macky Sall képp ku yëkkati kàddu jëmale ko ci président mi nga xam ne moom lan àndal boo dee ab sëriñ danañ génn jàkkaarloo ak yow tontu loolu nag moom lañ jël engagement ca njëkk a njëkk ci lool la ñu nekk nan xam ne ab sëriñ bu demee bay def politique soo gasket politique kon di wax ci politique kon nit ñi am na droit tontu ci politique kon loolu soxna si di wax dafa nekk li rek waaye waxut ay wax yoo xam ne waxi boppam la kon maa ngi ñaan réew mi ñu tegaat ko mbir mi ci yoon xam ne ñun sëriñ siy def politique doon ay citoyen lañ li ñuy wax it ñun ñoo engagé préféré def politique kon loolu it maa ngi wax ne képp ku yëkkati kàddu jëmale ko ci président Macky Sall boo dee ab sëriñ la dana yëkkati suñu kàddu bi di la lii ñuy def nag suñ gëm-gëm la engagement leneen li ci des it ma di ko wax jëmale ko ci ñi ma àndal muy ñoom nan bàyyi xel seen sëriñ si àndal nan jàppale seen sëriñ si àndal parce que yow bu fekkee ne dangaa jël ay engagement ànd ak ñoom doonub sëriñ te ku yëkkati kàddu doonub sëriñ nga wax ak ñoom joxañ leen ñoom it waru ñuy organiser lenn lu jëm ci sëriñ wala ñu dem ci ay réew yoo xam ne ay jullit lan ci sëriñ soo si dugaluñu ci seen loxo loolu li koy indi nag dama jàpp ne commerçant mooy tontu commerçant journaliste man naa wax moroom journaliste am moo tax ab sëriñ ab sëriñ koy tontu di fii ku fi joxoñ président Macky Sall danaa la joxoñ loolu na leer nañ xam nga loolu période bi la waaye dafa am ñoo xam ne xëy na ci woote yi woowuñu leen woon ci ñooñu man bari na ci ñoo xam ne jot naa leen ku mel ne àll si la ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne nii tamit ay responsable la waaye ku mel ne Sadaga tey dafay seesi feneen ci Koungheul waaye li am solo mooy missage boobu jàll ci gëm naa ne carte yooyu it danañ ko jaay facilement parce que problème bi du problème bu carte jaay carte ay 60 000 Touba jaay carte 80 nangam ci département bi loolu yaakaar naa ne ah, lu tuuti la pour benn ah, APR kon nag gëm naa ne problème bu loolu problème bi kay mooy ndaw ñi nan la ñuy def pour jàppale leen naw ni nan leen leen di bàyyee xel parce que ñooy ñi ëpp ñuy wàcc ci terrain bi ñoo jigéen ñi kon yaakaar naa ni man man sama xalaat ak sama problème du carte mais problème bi foofu la jëm waaw xam nga man damay faral di wax ne ñun waa tubaay it war na noo xool suñuy toogaay naa fi nga xam ne mooy Thiès ànd ak moom Abdoulaye Dione wax ja tàngoon na waaye ñëpp wax nañ seen soxla ba jógee fa ca benn attaque amu fa benn nit ñuy jotee amu fa kon ñun bu ñu waxee jëm Touba ñun war nañoo xoolaat suñu toogaay ba yu mel nii ñu war nañ koy ko mu faral di bañ dem am parce que Touba méngoowut ak loolu jig di muy dëkk bi it méngoowut ak loolu kon loolu war na nañoo defaraat suñu toogaay ndax Thiès ñëpp xam ne garaaw na ci politique Thiès bu mënee dajaloo waxi seen soxla ba jege te yooyu amul kon ñun war noo toog parce que loolu bi ma ko bi ma yëgee ni ñëw gi rek def naa benn audio lancé ko ci mboolem département bi wan ne bu ñuy ñëw nan ko def ci ay teggin nan nañ ko parce que xamoon naa mooy nañ ko doxal ci ay teggin ba nga xam ne liñ bëgg a wax danañ ko wax ñi war a yóbbu yóbbu ko ci benn problème bi am. Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bës cloche bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel tous les événements.